jaay xale yi dem nañ marché bu ne <laughs> luuma bu ne xale yi dem nañ fa jaay waaye wax naa samay gan Sénégal dañoo tàmm bu ñu amee gan di ko jox ay bonbon ay crevette yooyu du ñun loolu tubaabeewul maam raan ma indi woon samay gerte caaf ak samay gerte xoot pour bu ñu amee ay gan di leen ko jox ginnaaw bu ma waxee salaamaaleykum euh, sama waaj maa ngi lay kontaane. nee naa la booy ñëw jaaral marché syndicat. waaw mais woon nañ Kaba. ana lom moom lañ ko joxoon balaa ah, gën ñee ñëw a ah, ah, nag aba na lom ñëw na lom ñëw aba maa ngi lay siyaare di la ñaanal jàmm di la wax ne la na namoon naa la yow sax minute dama laa war di gis ndax da ngaa bokk ci man sama jigéen maa ngi laa siyaar maa ngi laa bëgg bu baax waaw maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax waaw di rafetlu toogaay bi waa place bi ñoo ñëw waa place bi yegsee bi waaw waaw ñooñu anañu waaw li commencé gis <laughs> yoon bi waaw may nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax émission bi départ na képp koo xamante ne da ngaa yor loo xam ne bëgg nga mu siiw ah, boo ñëwee fii jaayal la ko aba yaakaar naa waa kàddu gaa ngi noonu ñu doxal ba ci kanam ñu xool sam noo def waaw maa ngi sant yàlla bu baax a ngi lay nuyu j'espère que sa ngoon bi ça se passe bien Mame aussi maa ngi lay nuyu euh, j'espère que yaa ngi ci jàmm di nuyu yéen ñi jàkkaarloog ñun duñu seetaan comme ñu ko waxee rek seetu Sénégal fii nag da ngeen teg seen leen ko incha allah bu mu donc nuyu nañ leen ziyaar nañ leen émission bi démarré na ci jàmm ak salaam Aba Aïcha Aïcha ni ma koy waxee rek euh, mooy ni ma koy waxee ci rajo bi noonu laa koy waxee fii ci télé bi man waatalu ma leen ni lu utile mën na fi am utile moom da ngeen làmb rek yem ci bu nee seen sens la agréable daal mën naa leen koo waatal ah yëfi mature amul fi mën naa leen koo waatal sama maquilleuse bu mag bi Yacine maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu Didi di nuyu Khadija Dafe di nuyu Karim Aba maa ngi lay nuyu Ana Lamine maa ngi lay nuyu Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu nuyu naa Saliou bu Diouf maa ngi lay nuyu Cheikh technicien SSP maa ngi lay nuyu Lom maa ngi lay nuyu Abdoulaye réalisateur bu mag bi maa ngi lay nuyu kii taxaw ci euh, kii kan la ah papa kii kan la ah a ah. ah papa Mané la kay papa Mané <laughs> sa biir bi laa la xam maa ngi lay nuyu ah di nuyu Pape Sylla di nuyu ñëpp rek di leen kontaanee Cheikh technicien SSP ñaata yoon laa la nuyu nuyu naa la Cheikh nuyu naa la nuyu naa la bu baax di nuyu Youssou Ndour mi war a génne album bi le 12 di wax ni album bi di nuyu Jean Jean Jean maa MC di nuyu MC ci caméra yeeg ci écran yeeg yëpp MC maa ngi la ci nuyu ku baax xale bu am jom astafurlah mag mag bu am jom yal na yàlla defal la jàmm MC yal na sa jàmm yàgg ayce di nuyu Cheikh SSP technicien ah waaye yow tamit sonn nañu waay ayca mu ngi noonu écran bi bu nekkee nii ngay seetaan la TFM waaw da ngay jël li nga xam ni moom mooy QR code bi mhm. nga scanné ko mhm. boo ko scanné mhm. daf lay yóbbu directement ci Wave bi bu ko defee album Youssou Ndour bi mën nga ko faa jënd foofu ba xam ni bu génnee vendredi di nga bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy njëkk am Wave lañ ci àndal ah euh, fayal sans stress wave moo lay jaay album bi nga xam ne mooy album Youssou Ndour bi QR code bi ci écran bi Samira boo jëlee sa portable da nga koy teg ci QR code bi daf koy scanner. dama foogoon danga may nax mais dama koo essayé. daf koy scanner. daf koy scanner dama foogoon ni daf may nax. kor joo rek jël mais sama téléphone ne ko tey rek jot affaire. bari nga ci morom. waaw noonu. Ah, c'est la révolution noonu rek nga ko mën a amee. bari na ci réew mi ñoo xam ne pour ñoom dama leen nax. loolu yomb na loolu yomb sa portable. waaw nga teg ko ci écran bi. waaw. QR code bi nga koy teg. waaw scanner. waaw boo scanner daf lay yóbbu directement ci Wave bi. waaw nga jënd sa album. waaw toog da ngay toog rek xaar. vendredi huit heures. li nga yow heure bi nag moom euh, dinañ ko xool waaw vendredi la daal <laughs> vendredi la daal ayca nañu dem suñu premier clip te ay clip international laa am. dañu dem premier clip bi daal di koy xool te ñëwaat léegi ci plateau bi ko fi Koffi Olimide Infinity ñu xool ko léegi te ñëwaat doxal ci seetu Sénégal showroom bi nga xam ni lépp fii lañ koy jaayee ayca c'est parti. acca mu ngi noonu à 88 628 ngeen dugg ci ah, numéro boobu nga xam ni mooy 65 65 88 628 02 02 88 628 72 86 88 628 03 03 88 628 65 65 ngeen participer ci biir émission bi nga xam ni moom mooy seetu Sénégal yaakaar naa ni Samira Coulibaly lii la tiim nii lan la. waaw man damaa tàmbalee jaay jaay. xoolal ma xeetu lii. sóorum <laughs> baa ngi noonu. abaa gis nga beurre de mangue. ayca mës nga koo gis. luy loolu. beurre de mangue ci yaram lay tegu. luy loolu. boo bëggee teint bu baax. Mhm. teint bu mel ni sa t-shirt. dëggal li da ngay daal di taamu li nga xamante ni mooy sama secret. beurre de mangue waaye yemuñu ca de beurre de quarité ngi nii. ay diw xeetu diw yu baax yoo xamante ne xaar leen ma woon leen huile bi à baax nee naa la fii lu fi waay teg ñu jaay ko huile 24 heures baa ngi nii boo ko defee 24 heures nga weex tàll mel ni jamaa maa la wax lii raan lii yaakaar naa gis naa ci madame sax lii moom ku ci am xew ngénte mariage wala anniversaire en cinq jours mu réparer sa po nga belli di fëlaale ah noo noo noo non mun a boti mun a boti daf ñuy nax rek xoolal bu di repère bi pot bi ni mu ndawee noonu la saqatee am doole am njëriñ ah kenn mu daa wute <laughs> da ngay xool lii bu di repère bi nee naa la man gaam bi yëpp su ma sañoon yéen toog jàkkaarloog man gaam bi yëpp ngeen di jënd def pat def seen traitement bu mu baax lii mooy secret jeeg ji duma leen ko nëbb benn yoon xoolal bel métis bi abaa bu la métis dabee ci yoon bi. Ah, bu ko laaj lu muy diwoo de. xam nañ secret bi mu ngi ci mun a bote. mun a bote la. bel métis bi lay laal. Ah, waaye duñ ci yem de nee naa la savon booy sangu chaque jour da ngay taamu savon bi nga xamante ne moom la mun a bote recommandé nit ñi da ngay sangu di gën a belli bu la neexee bañ a diw waaye yokk ci ak def cere euh, yaakaar naa du ko yàqu. mun a mii nee naa moo gën ci yaram bu yàqu. gën ci yaram bu cere gën ci yaram bu am ay rew. mun a bote boo ko bëggee da ngay dem Ouest Foire dem Grand Médine dem Mbour wala nga fi nga xam ni moom mooy Mbàkke mun naa ba tey yaakaar naa ne ay yëfam baax na. xoolal numéro ay ci Aba. Ah, mhm. ah, man Demba ah, lii xam naa ne am na solo. Mhm. Aba demb dan maa xooj ci pan. Eh. ah dama ma la Aba naka te ay tànk dañ ci pan di ko ragal. maanaam yow sama mariage bi ñun commencé nañ. dama la yow dama la isil lee tax damay Aba bàyyi ma Aba bàyyi ma mënu maa nekk ak yow fii. doon ngay lan. ngeen mel ni yow yow yaa mujj. ah ba xanaa du la xooj. a ba naka am na ci mi lu ma ca xam. yow dañu la def ah dañ maa xooj. xooj la ci lo ah di ma ragga. mu ngi mu toll nii yow. waaw loolu ma jaaxal. ñu kuy jàngee école. cam Pape la xocce doo furi maa la wax. Pape Sylla waaye gis ngeen. Pape Sylla abaa ah abaa man lii kuy jàngee école rek. ah dañ may xooj. ñu lay sang rek barke Seydina Limaam lu mel ni kenn. ah dañ ma koy takkal. Ah, ah cam Pape Sylla ñu ngi lay masawu. Pape Sylla ñu ngi lay masawu li ngay dunda métti na célibataire yi kon produit yi mun naa ngi nii fi nga ah. nekkoon donc produit mun naa yi yëpp mooy sama secret man personnellement da ngeen di dem ngeen commandé seen gaam ngeen bëli def nu leen neex bu leen neexee teint marron teint noir teint clair teint métis lépp lu ngeen di bëgg rek da di dem ci Mona bu ci mi ngi Ouest Foire si tali euh, mi ngi Ouest Foire ci tali nag bi mën ngeen ko joindre ci 77 650 38 60 wala 77 040 28 75 ngeen daal di woo ki nga xamante ni mooy Mona mu daal leen di wax lan moo baax pour réew lan moo baax pour cere lan moo baax pour loolu yëpp acca Mona Bouté nga xam ne moom moo am ca fees am ay millions pour mën cee dem loolu jeex na Euh, loolu la amatul fi ñu toll nii à partir de 550 000 mën ngaa dem ci ziara bi nga xam ni moom moo am foofu ca Fès nga ànd ci ak waa conciergerie bi nga xam ni mooy Maroc ak bu Sénégal tabarkàlla nga am fa 7 jours 7 jours yoo xam ni euh, bus yi ngay dugg dañ koy climatiser. hôtel ba ngay dal 4 étoiles la. da ngay lekk da ngay naan. da ngay def ay visite Casablanca da ngay def ay visite Rabat da ngay def ay visite Fès tabarkàlla. <laughs> wallaahi ah, dañ leen kaa may siyaare ñu Cheikh ah dañ laa dañ Cheikh Tidiane dem siyaare ji paasoo leen place yi nag maam ran dañ koo yemale ku yéexati ñàkk la ku rombati mën nga koo ré lii loolu woote leen ah nan woote aca def leen 78 604 66 66 wala 78 607 47 47 wala ngeen dem ca avenue Bourguiba fekk fa ñi nga xam ne ñoom ñooy conciergerie Maroc ak bu Sénégal tabarkàlla siyaare bi am na solo ah, ku ne bëgg ah, nga xam tànnal clip. Ah. waaye bu ma saf laay tànn. ban la ay ay téye seen noy bu kenn noy <laughs> everybody téye sa noy. mooy tam naan un coup un coup un coup un coup un coup Fally Ipupa Fally Ipupa Fally Ipupa un coup un coup un coup deux coups deux coups deux coups trois coups trois coups trois coups quatre coups quatre coups quatre coups c'est fini quatre coups c'est fini quatre coups c'est fini <laughs> quatre quatre. violence populaire. tarkalla doo am na am na solo am na solo euh, ay coup moom faaw nu toog di ko waxtaanee xeex baaxul xuloo baaxul yàlla na yal defal ñëpp ñu am jàmm wàññi coup yi daal lu ñu mën a wàññi coup yi rek ku bañ a am sax euh, ñëpp mën a nekk ci jàmm donc bu ko defee bu dee am na ko ne ci ligne bi nañ ma ko jox salaamaaleykum salaamaaleykum. bu fekk am na ku ne ci ligne bi nañ xool numéro yi mu ngi foofu ñu affiché ci suufu écran bi 88 628 72 86 88 628 65 65 Papa Mané 88 628 02 02 88 628 03 03 88 628 yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na awa gay maa ngi lay nuyu maa ngi lay gis euh, ak sama xarit bi si ngoom léegi laa lay tifli si yoon bi léegi laa la sànni ñu li Awa ñu ne ñu ne information bi ma jot mooy li Awa Gaye di wax déggaguñ ko mu jël micro si le temps ñuy régler programme mu bismillah euh, ok Aba comme li ma doon wax rek ma ne maa ngi lay nuyu you repeat old. Right. Yeah. <laughs> Madam Angley, it's a pleasure to see you good, I'm again. I'm good, I'm uh, good. di uh, nuyu Samira. mais information bi neex na ma trop. Oh. kontaan naa ci yow. <laughs> Ah. xaaral da ngaa fàtte kuy <laughs> amul amul fii. vraiment euh, na ma yàlla baal mais. non non non please. maa ko doon xaar quoi jàppale ma. maa ngi doon xaar seen nouvelle bi man ak yow ànd Gambie vraiment. Euh, Absolute Entertainment ak Youssou Ndour euh, vraiment loolu euh, nouvelle la bu am solo aba maa ngi lay raay nuyoo Awa Gaye right Aba uh, rek uh, toogaat ak yow uh, Samira ak Mame Rane. thank you guys so much bokkaat waaye si ngoom nee naa léegi laa la yàbbi si yoon bi yéy naa la ba sonn ndekete naa la fi fekk noonu may nuyu ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan suñu ay viewers suñu ay téléspectateurs waaye téléspectatrices yi nga xamante ni seetu bi boo leen gisee is a new touch a new revolution everything new pour wax leen rek ne Awa Gaye is back and we are back with different style different look affaire yi gën a neex. ayca Awa Gueye ñëwaat na nee na dellu si na ak li nga xam ni moom mooy ay style yu bees ak ay fem yu bees ak ay affaires yu bees yu neex moom la ci boole tabarkàlla ñu war di ànd ak moom euh, ci biir seetu Sénégal wax naa ni showroom bi moom laa ko dippee au Sénégal dañuy am gan di ko jox ay yeneen yoo xam ni moomuñu ko di ci daj ay coono lu ne ñu ko ci def bis ni tey bu nu amatee gan dinañ ko teral ci li nga xam ne ñoo ko moom. maam raan ñoo moom konkorong ñoo ko moom ñoo moom new ñoo ko moom ak lan a óol ak lan gerte ak ak ndiir ak lan ak ñaanda ak lan ak ak solom ak lan ak kii li ñu naan xaal ak lan waaw waaw leen moom bëri na <laughs> ah comme ça gis ah waaw nen ñi ñi ñi en tout cas maam raan bu ñu amee gan ci lu ñu moom lañ koy terale waaw mooy yoon nit ku nekk li nga am rek ngay teralaatee lii moom lan ah, kii daan jaay mag ñi ku ne jëndi nga ko ku ne jaay ah ma ne lii ah ay solom ay ndiir solom ah ay ay ay ay konkorong ba pare lii kenn war ko woon indi nii fekk dañ ko toj ba pare waaw lii dañ ko waroon a indi noonu waaw waaw ni mu leen seetaan waaw euh, di xam lay xam dafa ñuul boo ko tojee ci lay soog a am lu xonq xam nga solom lu si neex mhm. da ngay jël lii yëpp nga dajale ko ba mu baax nga sànni ko sa génn doo def benn de yu ah, bari ngay def affaire bi di xaw a ah, tas like that yàbbi doom yi kii naa màcc ah, solom de kii mën naa màcc solom de I love solom Ah! loolu yëpp tamit tem temi dégg nga lii dégg nga lii Aba ay eh, Awa Gaye ay solo xam na fi may jàpp ay dam xam na fi ay ñuule lu ma gëj a gis lii mooy eh, teraanga eh, Sénégal wax loo ay wax yu foor ay site internet dinañ ma daggati ay waay dinañ ma daggati daf may wax loo daf may wax loo buy la ah buy la buy la lii mooy buy yu ñu préparé waaw bi ñu préparé am na ci yu am jinjeer waaw am na ci boo xam ne dañ koy ah. waaw am na ci boo xam ne dañ koy sànni noonu waaw waaw boobu boo gën a métti nag boo boo bëri sa làmmiñ day mel ni papier ay ci ah, xam métti ay ci téléspectateurs yi nga xam ne ñooy seetaan ñoom itamit am nañ ay loo yoo xam ne dañ leen koy may wax naa ni damaa ànd ak partenaire boo xam ne lu ma commencé euh, mu ànd ceeg man ki nga xam ni mooy Seydou Dabo doom yaayu si ngoom mooy borom Suisse Gold ma nga ca HLM mën ngeen ko woo ci 77 355 35 21 355 35 21 mais xam ngeen dama am ay partenaires yoo xam ni mhm. su ma ay partenaires individuels lañ mhm. bokk na ci waa Techno mhm. bokk na ci waa CO dañ maa woo. Mhm. ni ma dañoo bëgg ñëw. waaw surtout waa techno ñoom ñu ne bu ñu ñëwee vitrine la ñuy indi. fan la dañuy indi vitrine def ci ay portable def ci bu nekk prix bi ak marque beeg yëpp ñu ne ma xool fu ma koy teg donc loolu laa war a xool ni Amina. jaaxalu la ñoom Serigne nag ñoom lay dénk loolu. xaw ma fan laa koy teg mais faw ma teg ko foo xam ne fii ah of mbay fii. fii nañ jël large bi waaw waaw waaw fii dina baax. vitrine bi même fii baax na de même fii baax na de. jël ma oh, eh, la même fii baax na de fii. waaw waaw loolu jaaxalul Abba yi ñu teg ko nii rangale ko nii fi baax na. waaw CO bi. dégg li ñu teg ko nii CO bi large large. CO bi ñu teg ko nii rangale ko nii. fii baax na waaw. Abba CO boo ko tegee fii sax day dem. Ah, CO gi mën nekk ko teg nii. CO bi fii lañu koy teg. waaw yow nga xam ni. yaa ngi ñuy wan sa exemple. exemple euh, produit bi ban produit. waaw baal leen ma waaye. Ah, waaw waaw ni ma baal ma baal leen ma waaye. produit bi ban est <laughs> produit bi mën na tegu foofu kaay nga nga kaay kaay. kaay demal nga mën ni ko wan ñu xool. waaw wan ñu produit. ah ah ah. ah. ni nga ko waxee maa ngi ci large bi ah. gis ngeen produit yi nag. bay jooy yi bay jooy yi. waaw bay ba ma def. bi yaa mooy ni ci large bi. produit Mouna Beauté nee naa leen mu ngi Ouest Foire ci tali nag bi da di dem ngeen daal di belli tey bu mel nii bu ngeen ko bëggee rek Mouna Beauté. bëgg nañ ko bëgg nañ ko indiwaat ko indiwaat ko. a gagné waaw. nga lii boo ko defee dagan na mais dafa nekk ci gox. Ah, waaw waaw nekkoon fii nekk ci son bi euh, ñu dugg antenne Pape ngi nii toog. ku baax a ngi nii toog Pape mu ngi nii waaw. Euh, fi mu nii de. waaw Sénégal gi yëpp dañoo bëgg liggéeyu Pape takk micro. waa ñi muy takkal no non non non non takk micro ak ñi ngay takkal nit ñi bu ñu ñeewee Pape ñi muy takkal micro. day koy takkal micro. Fanta Samira. koy takkal micro. Awa koy takkal micro. dërëm. koy takkal mi euh, micro ñoom Besset. koy takkal Mado. sànq laa naka takkal ma mën a takko. ah góor ñi waxu ci dara. moom Saliou duñu wax. Ah, Pape Sylla ak Saliou duñu wax. leen da xam naa ko ñu wax. ñaari ful leçon yi duñu wax. Ah. waay bàyyi la problème fenn lañ ko amee may takk kii. Ah. ah aja aja aja aja aja aja may takkal kii lañ amee problème. ayca kii dafa dugal li bëgg a génn ayca. génn génn problème fi ñu amee problème leen rek la may takkal kii. fii la. fistet ak Saliou. Euh, waaw gis nga loolu yéen pour yéen lan moo ko yóbbu foofu. moo ma jaaxal ba pare dañ koo seere. <laughs> Ah, waaye yéen waaye yéen ndax duma leen ah. nettali yéen. du ma leen nettali soirée yuusu Ndour bi amoon Cissesse. Youssou di way ndeke booy yi changé wuñu micro Youssou. déedéet lii loolu. Youssou di way micro bi génnatul. déedéet. batterie bi booy yi defaluñ ko batterie bu bees kilifa gu toll ni Youssou di way nga nga yow nga jël ba ba ngànk fa ngànk batterie du dugaloo ko Youssou yegg ci oh oh oh oh oo jële jeexal na ñaari batterie oo jële jeexal ñaari batterie te lëndëm gi ñëwagul ayo bàyyi lëndëm bi génn waaw du génn du génn yuusu di seet lëndëm gi wàcc fu lëndëm fi luy loolu fekk def ci code ci code ah ci kanam léegi dinaa ñëw wax leen ñoom saa neex bu ñu bëggee bokk ci jeu concours théâtre bi ndeysaan te demoon doon seetlu ji waaw benn pël lañ seeti woon luy pour pël bi seetal leen dégg loolu bu ngeen bëggee ci kanam bu leen ma ko laajee yéen internet yi laaj ma ko. waaw euh, téléspectateurs yi laaj ma ko. ma soog leen koo may. Ah, bàyyi naa di nettali ay histoire te kenn laaju. waaw laaj bu ci kanam ko wax histoire jàmbur kenn laaju ma laa yemale. arrêté naa loolu c'est fini. bàyyi na xoo. Oh, oh, oh, ah, eh, eh, waaw eh, ci <laughs> ngoom yow liñ la laaj mooy fan nga jóge foo jëm. ak ci lan nga nekk. ajo fi nga toog ni ku la fi woo. déjà boo xoolee àdduna ñett la mooy li nga weesu ak li nekk ak li nga war a dund ji. ok mooy démb tay ak suba. ok tu comprends. mooy ñi ngay jàngal. waaw mat nañ la bàyyi. waaw ah. comprendre ah. maanaam euh, boo xoolee tey. le 12 novembre incha allahu rabbi. Youssou Ndour day génne album. barki yonent bi. mais le 12 novembre. Ah, ah yaa ngi laal yaa ngi laal yëfi jàmbur ah mais Youssou Ndour Youssou Ndour Sénégal la ah, Youssou àdduna la sax pour ne pas Sénégal kese. donc moo tax kenn ku ci nekk daal ci biir album bi war ngaa xool loo ci génne. pour sargalee ko Youssou. xam nga lan la ma wax. albumu Youssou bi day génn le 12. waaw noo def mu pëtëxlu ci. Uh-huh. daal di loo xam ni. album bi daf koy mën a yóbbaale mën naa nekk ah, parce que xale yëpp Youssou seen référence mais li muy génne wute naag li Youssou di génne malgré lépp ci biir culture la nekk mais dafa innové xale bi dafa créé lu doy waar xale bi seen une référence quand même xale bi dafa nekk koo xam ni espoir la ci culture bi nga xam ni moom la ñu nekk et li mu créé moyens yi mu ci def xel mi mu ci def loolu mënu ma ko wax moo koy waxat bopp parce que Abba ginnaaw bi euh, euh, toogal ko non parce que xam nga tamit euh, li nga wax nii sax waroon nga ci gën a yàgg mais pour na pas wax ba pare di waxaat en français ak yeneen làkk yi parce que xam naa ne ñuy suivre bëri na à travers la TFM mm-hmm. mm-hmm. donc damay gën a leeralal mm-hmm. parce que ginnaaw bu Youssou Ndour alimenté réseaux sociaux yeeg télé yi le 12 bu soobee yàlla dama bëgg yéen ñëpp ngeen dugg nag sama chaîne YouTube parce que dama innové parce que dama ànd ak sénégalais yi les sénégalais euh, de l' intérieur et de l' maanaam sénégalais yi dëkk fii ak ñi nga xam ne bitim réew lañ nekk un peu partout ci monde bi. Mhm. ñu def benn film film court métrage boo xam ne format cinéma la. ñu ngi ko tourné en francais mais def ci li ci war yëpp. Mhm. ah jëlee nañ fi nit ah, France indi ko fii daggal ko billet d'avion jëlee nañ fi nit Maroc jëlee nañ fi nit fu ne. Mhm. pour pour projet bi et projet bi vraiment autoproduction la. Mhm. ndax ñun tey bu ñuy xool ñu mel ni Youssou Ndour Youssou Ndour sax sori na parce que Abba rek. waaw man maa ngi koy maa ngi koy wax fu ne donc bu ñuy xool ku mel ni Abba. moom fit bi mu am. ak maanaam ni mu ñu wanee yoon bi ba nga xamante ne tey kenn ku ci nekk ci ñun euh, maanaam moom seetu la donc di nga mën a demal sa bopp di am sa yëfi bopp di am sa xaalis di am sa teraanga di teral sa bopp di teral sa njaboot ah te doo sonn sa xol du jeex parce que gëm-gëm la gëm sa bopp ak gëm ne yàlla moo fi ne donc gëm ne aussi le talent seul ne suffit pas il faut avoir du talent avoir le style et puis am li nga xamante ne nii mooy ngëm-ngëm donc boo tax euh, góorgóorlu nañ daal ba def film boo xamante ne mais li ñuy wax ci mais li ñuy wax ci yow Euh, tey création bi mu ngi nekk sa benn film la boo xam ni intégral bi c'est en français ah. donc xam nañ ni am na leneen looy yootu te incha allah di nga ci jot. donc tey waxuñu foofu fa ñuy waxee euh, mooy euh, tey moyens yi nga xam ne moom nga ci def. ñu naan franc-maçon la ñu naan dafa am ñu ne ci ginnaawam ñu naan da nga ne ci ay lobby ñu naan dafa am ci ay lobby yoo nekk faaw nga leeral ñu loolu yow la wala dafa am kenn ku ko def parce que déjà man bi may njëkk am 100000 abonnés Instagram dañ ma jàppee woon franc-maçon loolu lañ ma njëkk a bindal. Oh, waaw bi may man à bas ci yow lu bari. Mhm. yu bari du ko du ma ko bàyyi xel trop. Mhm. comprendre nga damay xool li nekk sama kanam. man yaa ngi dégg ñu dama ko waa dégg man waaw waaw ñu ne da nga doon sëqal karaw. ñu ne yaa kan mooy wat Aba. dama ko jaay lan wax ñu ne ah, dama jaay sama karaw gi. mais loolu oustaz laa amee karaw. xanaa kay bopp la ñuy xool rek te ñu ko gis waaye tarkal la yàlla teral na ma de yàlla teral na ma de sant yàlla bu baax sant yàlla de waaw yow kay kaay bu ñu wéetoon nii nga xam ne lépp kaay ah, ah yow ah, baal ma yow est am nga jot kon ah, si ngom yeggale comprendre mm-hmm. mais Samira comme tey man damay def bu ma demee abasho bu ma abasho fayee euh, maanaam un million wala nangam un million boobu dama koy denc du ci jënd sañse bu dul lu weesu li may ciy jox sama yaay ak ñi nga xam ne ñoom laa bokkal euh, dama koy denc am fu ma ko denc ma demaat feneen ñu jox ma fa ñu fay ma fa lii ah ma denc ko bu ko defee bu ma paree ba dajale loolu bu tolloo nenn ma boole kook li nga xam ne moom laay foraatu bu ko defee ma def ci benn production boo xam ne autoproduction la mooy production boo xam ne yaa ko produiral sa bopp muy samay clip comédie musicale muy sama ay film parce que li tax may def film di def comédie musicale euh, donc dañuy xool benn Will Smith aux États-Unis wala ñu xool benn Jamie Foxx wala benn benn Kevin Hart so ñoom dañuy ñoom dañuy dañuy jouer acting nga ne ñii ils sont bien ci ñii lii rek lañ mën film mais bu ñu defee musique da nga naan ñii ay chanteur lañu ñu def leneen nga nga nga jàpp leen ci loolu tu vois un peu. non ah, ah, donc c'est office. xam nga je l'aime trop. xam nga comédie euh, it's universal. Mm-hmm. Euh, the fact that nga am that humour inside you rek mm-hmm. euh, mun nga nekk anything. Mm-hmm. tey mun nga reetaan loo nit bu subaa mun nga nekk parce nekk na loo xamante ni yàlla jox ko everybody. dafay tànn ñoo xamante ni daf leen ko jox. so boo amee da xel nga initiate comme li nga wax nii. but man. Euh, est-ce que amuloo euh, koo xamante ni euh, may bi sponsor. boo xamante ni da nga koy nëbb doo ko wax. you know and you don't want to talk about it parce que fii ñun ñëpp dañuy dajale di denc di kii ba den di ngay dajale di denc di kii ñun ñëpp xam ne di nga foraatu li ngay foraatu du am doole to that extent macha allah. all of a sudden yeggale la yow fi nga yegg. mooy li Awa Gueye di wax nee na boo xasee neex neex nga. neex national ak neex international la yam. if you funny you funny. you have a face funny you talk you or you don't talk you funny. Mm-hmm. funny nga mooy funny. xanaa da ngay def anglais maa ngi école. <laughs> <laughs> wallaahi maa ngi école. si nga Awa Gueye li mu la laaj nii. di nga ci tontu de. Mm. ndax dafa am sponsor yu nekk sa ginnaaw ak yooyu. mais balaa boobu mën a ñaane benn affaire ma ko may. ak sa diggante ça dépend ci bi nag. la la la ñaan waaw. ñu xool benn clip te ñëwaat. ay ca émission bi dama cee bëgg jox valeur musique. waaw surtout musique sénégalaise. dama cee bëgg jox valeur njaay ak jënd. Mhm. maanaam kuy jaay. bëgg looy jaay. mbaar di jaay mbëfër. non dama koy entraîner léegi coach Ousse moom mooy. maa ngi la gis yaa ngi def yaa ngi def activité bu. Ah. ah jaar nga Massi Sëñ fa. jaar nga Massi Sëñ Fall foofu madame Ndour moo fa yóbbu. madame Ndour ah, lekk kii. waa yow émission bi wala foofu. Ah, waa kii fii lay di def ak keneen de li nga def nii ñëpp bëgg nañ ko. fanta fanta ba mu xool la nga def ko li nga koy def. waaw wallaay maa ko gën a na xel dee daa bëggoon ma xam ne mu ngi fi mais après xam nga ne yow fii nga nekk. Eh. Ah, eh. yow doo nga fi nekk. Ah. la bëgg sa bopp. ah Youssou yow kese la keneen bokk. Ah, mooy la ma ngi eh. naan ah ma ne Aba. oh Maliko. ah ba li ngay def ah baax na. waaw mais may nuyu Abdoulaye Lay Makhtar. sama waa ji yàgg noo dégg yàgg naa ko dégg mais maa koy doo gis ndeysaan waaw mu doon nit ku baax lay maxtaar maa ngi lay siyaar di la ñaan yàlla yàlla dafa la jàmm ah aba mhm. waa réew mi dañoo xëy am lu fi ne mhm. waa aba mburu daa manqué mburu amul waaw loolu lu wax. dañee loolu nit ñi te nag gis nga. maam Rane waaw réew mi ah. nit ñee ngi lekk loo xam ne buñ ko miinee. waaw boulangerie yi dinañ lakkaat. li ñuy lakk du jàll. ah baax na am nañu. dañuy neex na de ah? ah ah man day tey dama xëy. sama farine de laa defar. luy loolu. Ah, waaw xooyal sama ah, bañ fonde fonde mboq bi. fonde dugub. waaw laaxu ceeb yeeg laaxu yi ñu koy ndékkee. waaw bañ dugub ak bañ a farine. Ah. di def seen mbéy. baax na forsa yeeg yeneen yi. aba aba ñuy masawu fee nii ak ñu fee def réunion manko ñoom association de tous les Pël Fuuta du uh-huh. ñu defar ay mbóori mbóori mooy fonde bi nga xamante ne ñoom Pël Fuuta yi ñoo koy def.

genre kilo mburu la ko def xam naa daf ñoo bëgg a fàttaloo mburu sax ñëpp moom la jën tey ah madame Kodjo jaay ma kilo beñe mu jox la kilo beñe mooy genre kilo beñe bi day am bopp bi am bopp bi ba pare day tàllal. ah doo ko wàññi tuuti rek. Ah, ah, ah, gis nga. Euh, ma ne pour nga wàññi ah pour kii bi tuuti mu tolloog beñe voilà. kii ngi wax lu am solo bi am na noo koy lekkee boo ma moom moo lay. kii ngi wax en tout cas daal sonn nañ ci. grève geeg mer geeg yooyu nañ bàyyi xel ci askan wi ah, ñu bàyyi xel ci askan wi parce que li nga xamante ni euh, nit ah. daf ko soxla chaque jour every day si suñu daily life su manqué dafay euh, am coono euh, li ngay lekkee mburu pat la dëgg la mun nga lekk cake mun nga lekk leneen ak leneen bat mburu la ñu tàmm comme exemple loolu moo xew fi in Gambia li nga xamante ni mooy essence manqué na loolu is is a problem hmm. donc I think ne whatever lu nit ñi di def rek nañ sóoraa li nga xamante ni daily lives of nit ñi la because boo ko defee nit ñi à the end of the day tëddee du ñoom rek nga koy def yow sa boo ah. tëddee doo nelaw so I think ñu kaay na kii waaye yow mi li nga wax nii mhm. war ngaa soo génnee si après ngay wax ak ah, day naa kii daal loolu day dale daa waxul benn dëgg daa ah, day dale lii day dale lii day yëkki da dal nit li muy xam ne lii amul li muy wax daal dara du ci dëgg en am nañ fi ay partenaires yoo xam ni gañ ñoo gunge waa Sarabia bio ak waa a Beauté ah, ñu ngi leen di kontaane bu baax bokk na ci nga xam ni ñoom ñooy waa conciergerie bi nga xam ni mooy Maroc ak waa Sénégal ñoom itamit ñu ngi leen di bëggee waaye ànd ak ki nga xam ni moom mooy Youssouma Jigéen Ndour ànd ak ki nga xam ni moom mooy le roi ànd ak ki nga xam ni mooy empereur bi ànd ak ki nga xam ni mooy borom le douze ci ngoon. Ah. wala la douze ci suba. le ci suba ban nga jël yow. man ma jël ci ngoon. ayca ayca ayca booy seetaan TFM. waaw la nga am ci carapet bi man sama waaye am lu mu te amoo ko. mooy booy seetaan TFM. bi ngay gis. waaw. mën nga cee def sa téléphone. waaw scanner code bi. waaw da lay yóbbu Wave. Ah. nga jënd sa album Youssou Ndour douze titres vendredi bu génnee yaa koy njëkk am. te loolu nit ñi commencé nañ ko def am na ñu am album bi est-ce que album bi fi ñu toll nii xaajul. lii la olof Ndiaye nekk fii parce que fii du TFM. ñu écran bi ñu jox mooy eh, dañ leen ko doon wan. parce que Awa Gaye li mu wax lu am solo la. dañ ko doon teg fii pour mën leen ko wan. Awa Gaye screen. Mm-hmm. bu screené. ñu yóbbu ko wéef mu jënd. albumam téye vendredi huit heures. ah yaa yaa joxe huit heures. abaa yaa joxe huit heures. ba neuf heures daal. dix heures onze heures kon daal balaa minuit daal di ngeen jot seen. waaw ah, loolu la ma jaaxal waaw loolu la ma a wër. mën ngeen a woote ci numéro yi 88 628 euh, wax naa ni 65 65 88 628 72 86 88 628 ki nga xam ni mooy 02 03 88 628 65 65 88 628 03 03 yooyu yëpp ay numéro la yoo xam mu ngi affiché wu seen suufu écran yéen a ko gën a gis woote leen ma leen ay bassin woote leen ma may leen ay enveloppe xaalis woote leen ma may leen ay album Youssou Ndour. waaw woote leen ma may leen ay gaamu Sarabia. woote leen ma may leen ay gaamu. mun naa bote woote leen ma may leen li nga xam ni moom mooy ziyaara. loolu mën naa nga dem Maroc ñëwaat. jotewoo leen kenn dara woote leen. waaw jotewu na kenn dara. daa abal loo xam xamul xam nga fii yu si toog. ak lii ka tim. ah mbarke dina ñëwaat. xal ci lii waay ah, man ah, I really wanted us ah, su fekkee ne ñi réaliser mun nañoo tegal li nga xamante ni mooy the flyer on the screen ñu xaw a taxaw seetlu foofu tuuti. because maa si gis ay yi nga xamante ni. mooy mooy exactly mi ngi noonu su fekkee ne mun nañu ko wan rek. Mm, aba gis waaw waaw waaw right soo xoolee mm-hmm. yaa ngi gis marimba yaa ngi gis sabar yaa ngi gis some of this pare nag nga background bi Youssou toog mm-hmm. toogul fu anything extraordinary so is it back to culture waaye ndax Youssou li ñuy expect si moom surtout côté Gambia boo ma mayee euh, lii de boo ma mayee lii ma toj fi rim bu ngeen mësta dégg ngeen am nii mm. Youssou dafa def background bi mm-hmm. underground background mooy background bu yàgg. on the ground. ah démb la démb la duwaat. so right bu ma leen ñaanee nii image bi tout est signifiant. jëlal jëlal mbaar mbëpp mbëf. maa ngi gis uh, modèle. est-ce que mën naa yëg maa ngi gis uh, li nga xamante ne mooy ancien. Ah, lii boo ko boo ko toppee dina boo toppee lii. Ah. moo ah, da lay jox démb. Eh. barke jojoga maay daw. ay gerte ay si ay dawul xare ndeysaan boo seetloo wan benn gën gànnaar barke jojo jël ko maay xëy na ñaayu yaay dawul xëy na daan boo seetloo war man du ko yaar naa ma ne ko na maama yu sa maama ma ma ma na maama yu sa na war lii yaay nag ah leen dimbala ah leen dimbala heure pause moo jot heure pause ñu dem xooli une page de pub te ñëwaat léegi daal di yeggali seetu Sénégal showroom baa ngi nii lu neex am na lépp ba mu des maturité nan dem <laughs> Sénégal Saraba présente la gamme Cannelle la gamme cannelle am na diw bopp ah diw bopp cannelle pour sa karaw gën a gudd dundal ko fexe nag lépp loo xam ne da di siti mu dindi ko dindi lépp luy karaas sa bopp ci boppam karaw be cuir chevelu bi mën a dund am nañu huile cannelle ngir nooyal sa karaw sa karaw di nooy dindi karaas yi huile cannelle mooy huile bi nga xam ne mooy saxal sikkim ndaxte kat ñépp dañoo jël saxal sikkim fu mu toll nii am nañu shampoing cannelle à base d'aloe vera ak ginger day setal bopp di ko dundal di dundal karaw gi gi gën rafet waaw waaw di dindi ay teeñ dëñ ak yu ni mel am nañu it pommade cannelle ah, jigéen ñi déglu leen de ndànk laa koy wax ci suuf duma ko wax ci kaw de day yokk hanche di yokk ginnaaw di yokk tamit dënn bu leen ko wax kenn am nañu tamit loolu nga xam ne moom mooy tax say lèvre di rose di nooyal tuñ crème lèvre cannelle

jigéen ñi déglu leen yéen jigéen ñi seen yaram yàqu am cere cere maanaam cere wala mu am araw waaye yéen bu fekkee ni loolu dafa am nga war a génn jël sa kanam gi tay ko fond de teint nga jël sa yaram bi sax tay ci fond de teint di camoufler nu ne di camoufler yàqu-yàqu yi nekk ci sa kanam yëpp nga am masque de grossesse am ay vergetures borom kento yi képp ko ci bëgg sa yaram dindi imperfection yi nekk sa yaram bëgg nag li nga xam ni moo doon ay jafe-jafe yu nekk sa yaram nga daal di diw sa yaram am problème lu koy dindi lépp lépp lépp lépp lépp lépp mi ngi Muna Beauté Muna Beauté dafa di spécialiste ci lépp loo xam ne dafa jëm ci der jëm ci yaram nga xam ni nag dalay conseiller gunge la Muna Beauté ñu gën ko xam ci allo la réparatrice mu ne la nga ñëw mu réparé waat sa peau sa yaram da koy réparé waat ba mu ne koroj ne jëkkër bu lay xool di gën a kontaan jëkkër bu lay xool di gën a bëgg sa yaram di nes ne si Muna ñu gën ko xam ci la réparatrice lépp loo xam ni sa yaram daf ci am problème sa yaram di cere wala boog nga am problème mu boo ñëwee bëggee mu jàppale la boutique bi nag mi ngi nekk HLM Grand Médine côté Dior am nañu tamit beneen boutique ca Mbour mën nga ñu woo ci 77 650 38 60 77 650 38 60 wala 77 040 28 75 wala 78 169 42 42 78 169 42 42 sa pot daal di normal sa jëkkër ñëw nga ne ko bébé xët ma ndax mu gis sa digg ginnaaw. xam ni moom la autorité yu màkkatul mukaram yi daal di tëral ana soppey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ngir dem umra ak conciergerie Sénégal à partir de deux million cinq cent mille francs nombre de places limitées passeport bi nekk en date de validité passe sanitaire Covid 19 nga am ko maanaam fekk nga ñàkk ba yore sa kayit mën nga ñoo woo ci 78 607 47 47 77 663 19 62 conciergerie voyage Sénégal nekk fii ci avenue Bourguiba ci wetu manège bi ah ñun de ñooy xaritu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daañu la yóbbu ba ci moom umra 2021 2022 en toute sécurité ak conciergerie voyage. lan ngeen doon da ngeen doon jëw lan ngeen doon def lu ngeen doon wax ci suuf kon lu neex waaye mën na ko wax waaw ah, non non damay laaj ndax non ma gis ngeen wax ci suuf euh, diñ euh, di respect diñ nurum tëlu may laaj ndax lu neex waaye mën na ko wax ma commencé ci yow après ñu dem. du ngi may saroon di wax. waaw ñun ci dañ ko laaj commencé ci ci kee. ñu ànd man a yow siyaar waa Massi Sëñ Fallou. waaw bu ñu fa jógee ma ànd ak yow. waaw ñu ànd man ak yow. yaa bëgg na xam. <laughs> muy ànd ak yow. ñu ànd man a yow. <laughs> garaawul. Ah, ah, ah, waaw. kun jee mun jee kun sàkku jee. waaw a yéen <laughs> di kontaan suñu partenaire yaakaar naa ni euh, partenaires yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñëpp xam nañ ni euh, mooy euh, conciergerie bi nga xam ni mooy bu Maroc ak bu Sénégal ak waa Sarabia bio. Euh, Sarabia bio euh, Aba comme niñ ko gisee woon si euh, li nga xamante ni mooy publicité bi dañu indil gamme bu tudd Canel gamme bi nag li nga xamante ni comme sànq liñ doon wax rek mooy fépp foo xamante ni karaw daf la soxal yow mi nga xamante ni da bëgg a utiliser li nga xam ne <laughs> la fay wax sànq. Eh. Aba ah, téyel sa njaboot ji ndax ma mën a <laughs> yeggali. ok yeggali lu faale. right so yéen gis li nga xamante mooy the shampoo Canel base bi. Euh, li nga xamante ne mooy gingembre euh, ginger euh, ñëpp xam nañ ginger ban importance la am si li nga xamante ni mooy ak côté pousse karaw donc ni ma ko waxee woon rek anywhere foo xalaat na rek yow karaw soxal na la soit si leel euh, wala si li nga xamante ni mooy sa barbe euh, you know ak any other part that you really want it lii is the best product yoo xamante ni euh, mun nga koo use yaa xam ndax karaw bu redd nga am ndax karaw bu bu bu bu bu kii nga am li nga xamante ni mooy frisé bi moom nga am whatever hair type façon karaw bu nekk war ngaa mën a use lii leneen li si interesting mooy euh, dañu nekk si jamono joo xamante ni euh, look dafa am importance euh, li nga xamante ni mooy say ween it's very important nga nga defar ko ndaxte jigéen pep boo xawee solu war ngaa mën a coo coo déglu leen déglu leen a ngi wax lu am solo a ngi fu am na solo loolu li gën ci yaram lay wax ah dañuy bëgg di xool muy rafet dañoo bëgg di xool muy baax waa Sarabia bio moom lañ ñuy di déglu leen kii yegg fi nga nekk baax nga xamante mooy mooy sa weer ndaxte jigéen ñi ñun ñëpp bëgg nañu euh, solu ba pare euh, li nga xamante ne moo ñu différencier ak góor ñi ñu tooj ko mu xaw a am benn euh, look ak benn classe bi nga xamante ne daf koy dégager loolu pour am ko ñi nga xamante ne ñooy Saraba baat bi ñu indil eh, daam kanal ñoo ñu ko daal di indil te oda pat mooy li nga xamante ne soxal na abaa torop te wax dëgg neex yàlla xale jigéen ñi ñu ngi koy def man mii sax bu ma sañoon am bu gën a kii you know donc right now man xamante ni mooy euh, Saraba bio ndax ma mun a am date cove ndaxte euh, def souris nekk na eh? Saraba bio dafay waxal ma ko ci anglais is yokk naa sel suñu look daf lay restructure foofu <laughs> yeggal right uh, Saraba Bio uh, literally dañu ñëw dañu seet uh, nit ñi right now lan moo ñu gën a soxal ñu indi ñu ko ñëpp xam nañ karaw bu rafet bu gudd bëgg nañ ko tax na ñuy dem di defi ay kii ñu ñu ngi sol ay perruque and all of that waaye xam naa si kanam tuuti buñ gën a jëfandikoo Saraba why not ñu brochin suñu karaw ñoo toog def plateau of course waaye li nga xam tamit mooy fii ak fii it's very important Saraba Bio dañ ko indi te nag loo xamul si seen products yi mooy everything is bio everything is natural base bi xale jigéen ñi tamit nga xamante ne seen jëkkër yi dañu xaw am barbe euh, bu guddi jotee wala suba sa jëkkër wala liggéey yi nga daal di jël euh, huile bi euh, li nga ko siy diwal nga daal di ko diw xaw a tooyal sa loxo tuuti rek laal ko si xaw koo peñe it's going to grow and then dina shine you know so this is Saraba Bio ñoom nag ñu ngi nekk fële si usine ñaari benn tali fële si école Mame Dieye Sall mun nga leen a call si 77 609 78 95 wala 76 643 01 37 Abba donc this is my best go to product right now man I want to have all of it I want to have hair and I want a I want to, I want to have yëpp kay kon yow kon kay yow I have yëpp kay. Ah, I have yëpp for your skin. Ah, uh, I have yëpp for your uh, uh, for yow daal. waaw yow kii Fanta dinañ ñëw ci yow mais ca kanam. si ngoom mi dinañ ñëw ci moom mais ca kanam. man mii dina ñëw ci fees gi mais ca kanam. Ah. maam daan dinañ ñëw ci yow mais ca kanam. xam ngeen fi ñu toll nii tembe tembe fu ñu jëm. seetaani clip te ñëwaat. nangu ngeen li ma musique taxaw nga kii eh, kay eh, taxawal taxawal taxawal. de waagu ñaay. Sips Tampico. merci. merci. merci. clip. <laughs> Euh, ñuy jël clip yi noonu di ko teg noonu il faut que ñuy def ku nekk def sa choix wu ku nekk yaay def sa choix wu boo jëlee choix wu bi ba ñu teg ko bu mu ñëwee nga décortiquer clip bi. Oh, wax li la neex ci clip bi. I will love <laughs> yow ni ngay làkkee anglais dafa sexy trop ci man. waaw si man ma sa anglais parce que. loolu da ñi ngay waxee. waaw waaw day yóbbu sama xel te man. waaw te man nit dong la. waaw nit dong la. waaw te dañoo ne ci télé ay kilifa du ñu seetaan. waaw waaw donc ayu loolu daat bi. Ah, dama ko wax mhm. man yow sa anglais man ah, attanu ma ko. Ah, dafay sori ci man man yow fi ngay làkkee anglais man fi ma koy déggee day sori waaw. man yow fi may déggee sa. est it's not part of me. xam nga lu xam nga si man la nekk. Ah. I think so I mean dama xalaat rek ah. feeling bi la. parce que parce que parce que je me débrouille en français aussi donc euh, si je parle ah, français. kon aw yaa. momo dafa xëne. aw yaa ënexe. ok kon un ñu. Ah. xaw xaw ma loolu lu mu doon aw yaa kon affaire bi a ici aw yaa ala ekne kon aw yaa aw yaa aw yaa ayaa. ah ignabe iji awya awya udee udee bu yàlla sax daf ne booy bàkkaar te xamoo li ngay bàkkaar doo am bàkkaar udee jéggal so I have no idea what you talking about mu jëw ko udee bu def ci code mais après bu ma wàccee ci commentaire lañ ma wax li abaa udee bu gi moom xam naa léegi udee bu ili ekk ne iji ama a elmexe ah. omo un naam ekk ne uñu ef ah. ko de ah. alnama allaya amsa armasa aba amasa ene e ëpp ya egg ya iji at na ah ñu ngi xamal li nga wax. mun naa bëttee maam Rane wax de mun a wax ba nit ñi xam. ah daa xam naa kii de ñaanal naa ko yal na yàlla defal ko jàmm. amiin yal na yàlla sàmm ko. ah sàmm dégguma ko yal na yàlla taxawu ko. yal na ah, aar ko. dégguma ci yal na yàlla iir ko. amiin bokk ko. yal na yàlla may la nga yeggal ak sa sàmm. ah li antu. waaw Awa Gueye daa jógee ci li nga xamante ni mooy saraba bio baax ci karaw torop waaye man dama leen di indi li nga xamante ni moo baax gën ci yaram nee naa la boo bëggee teint métis teint maron teint clair lépp loo bëgg rek ci xeetu baax baax li nga dem ci Mouna Bouté mu daal di lay defal li nga xamante lii mooy beurre de mangue nee leen beurre de mangue bi moom dangeen koy teste oh du ma leen ci wax lu bari de pot bu ndaw bi nee naa leen tuuti na waaye sakkan na da ngeen koy daal di utiliser seen kanam di gën a belli seen yaram maamraan lii daal mhm. damaa bëgg buñ paree rek xam naa nga daal di jël rek daal di jox madame ndax ah, euh, moom daal xolal eh, yow comme sa xel mi dem yow nii laala gu naa buté ni sa xel mi dem bu laalee lii ndax yow dina ko andi ci réew mi dégg naa soxna si woo ma waaw lu ma Lamine woo na ma ne ma waxal maamraan mu ànd xelam kii soxnaam la dañ ko koo may. abuluñ ko ko luyeewuñ ko ko. soxna si moo taal reer teg ko. Oh, ñu teg reer bi di reer. Lamine toog Cheikh Tidiane toog. waaw toog soxna si toog. xool si muy lekk. waaw soxna si lay xool mel ni moomu ko. dégg naa day xool soxna si ba téye baaraam Lamine Lamine ne ko bàyyi loolu sama baaraam la. ah, ah, ah doo ànd ak ah, sa yow léegi nga fa defar. ànd ak sa <laughs> ama ama Maodo loolu bëggee la rek loolu ay xeetu bëggee la waaye bëgg naa trop nag madame aussi di jëfandikoo li nga xamante ni mooy produit Mouna Boutique yi nee naa la mooy képp koo xam ne métis nga awa bu fekkee sa teint da bëgg mu xaw a nga bëgg ko raxas bëgg a génnee pores rek yi ngay daal di jël li nga xamante ne mooy pour métis yi waaye li nga xamante aussi waaw boo bëggee niroog man rek da ngay këpp gaam bi yëpp rek daal moom daal koy làq ci sa armoire daal di koy diwoo waaye li nga xamante ni mooy saab bi nee naa la da ngay xëy di ko sangoo moom re lay belli loo ci Mouna Bouté Aba lépp loo bëgg xeetu baax baax xeetu jongama Aba ba jàmm. dama a wéeru. ah dëgg la nekk à l'aise. toog ci siis bi à xeetu baax baax bu ngeen bëgg rek da di daal di dem ci Mouna Bouté mi ngi fële ci Ouest Foire euh, Tali nag bi ngeen daal di koy joindre ci 77 650 38 60 wala 77 040 28 75 Mouna Bouté defal leen teint ngeen mel ni lem. Mouna Bouté boo na. buut abaa abaa. <laughs> ñoom saa waaw. wala wala yéen wala. ñoom Sanex waaw waaw waaw Kaabi waaw. waaw sëriñu pël bi waaw ah. ah, maa ay vingt ans lañ am. Ah. dem ci concours. waaw concours théâtre lañ jëm concours théâtre boo xam ne ñoom xam nañ ni dafay metti ci ñoom. parce que ay théâtre kat yu mag a fa nekk. Mm-hmm. bi ñu dem ci concours bi dem ci benn pël mu seetal leen. ne ko seetal ñu ci concours bi leen jëm xam nañ ni mën naa compliqué yooyu pël bi seet. Mm-hmm. seet seet seet yëngal yëngal si gi xool ne. Hmm? Hmm? Hmm? daal di yëngalaat yëngal yëngal yëngal yëngal daan dafa lende lende ñu naan ko la mu ne dafa lende lende <laughs> ñu naan ko lende na lende na lende ñoom saa neex ñoom comme xam nañ lii daal lëndëm leerul ñoom fii marché dafa lënd mais fii amul buntu. waaw waaw ma ne xanaa ah, ah, kii fii amul buntu yow. kii kii ndax da ngeen invité artiste yu ndaw yi. alma sa micro alma sa ah, micro wuy kii naan da ngeen invité wuy kii naan da ngeen invité lan la. ndeysaan jërëjëf Fall maa ngi siyaare ah, baax invité wuñ eh, eh, eh, ah, répétition moo la indi répétition moo ko indi. waaw Abba Show lay répété si. te nee nekkatul comédien musicien la. looy def ci répétition bi. waaw jërëjëf mbokk yi.

c'est sérieux ah mais ma fa la doxee. dafa dem Louga. daa dem Louga. waaw bi mu demee Louga. waaw. kii daa demoon Louga. ndeysaan <laughs> demoon na Louga de. bi mu demee Louga. Mm-hmm. mu nekk Louga. di seet ba xam. mais si ngoom si si ngoom ak projet bi nga xam ne moom la si ngoom nekk balaa ci ñëw euh, kii euh, bu dee am na ku ne ci ligne bi. bàyyi leen ko mu dugg rek émission baa ngi nii seetu Sénégal la tudd showroom baa ngi nii nga xam ni lépp loo bëgg mu jar fi nga koy indi ñu jaayal la ko wax naa ni dinañu jaay ba jaay album Youssou Ndour bi nga xam ne moo war a génn la 12. waaw tàmbali nañ koo jaay album baa ngi jar. mani yaa ngi seetaan TFM. scanner li nga xam ni mooy QR euh, code bi ngay gis noonu boo ko scanner daf lay yóbbu sa Wave nga jënd sa album am ko vendredi bu génne di nga bokk ci nga xam ne ñoo koy njëkk am albumu douze titres Youssou way album dippee ko mbalax ñu wooye ko roi du mbalax ba ci yàgg ñu yóbbu ko ci empereur ndax tabarkàlla xool nañ lu ne ñu jéem ko ko jox mais loolu lañ xam ni moo sut bu amoon lépp loolu loolu ñàkk pexe la moo tax ñu woowee ko ko mais bu ñu amoon moo bu ko sut dañ ko koy jox man man maa ngi ci xalaat sax ba am mais xam naa ni te nga jox ko mu bañ goot is mbalax goot is mbalax mais da nga ko koy jox mu bañ is mbalax ah, mais boo ko joxee mu bañ ah waaw loolu ba loolu day bañ waa Gambie nee nañ du laal loolu waaye king bi doyul king doyul english dañ naan uh, Uh, lan nga am above a king. dara you know uh, he's a king. Uh, he's the king of mbalax mm-hmm. the king of a true pan african mm-hmm. koo xamante ni boo ko xoolee uh, nga dégg turam rek automatically da ngay xam street his from Sénégal West Africa te bu ñu nee West Africa boo xooxee Sénégal sa xel dina dem si Gambia euh, gis nga Abba xamul si euh, album bi nag euh, su fekkee ne Sénégal dis personnes ñu ngi xaar album bi Gambia 100 percent ñu ngi toog di xaar album bi. ma laaj ma Amérique wala Angleterre. képp koo xamante ne African nga. yaa ngi xaar benn bu ñu dëkk ci cëli moo sama maam doon ko laaj album Youssou Ndour bi ban waxtu lay génn ma ne ko bu ma demee ci Abba naa ko laaj. kon kon Mingo. ah waaw ah, kii lan la ah kii lan la xale bi nan xoolaat la ah tam. Ah, ok e, waaye hours rek euh, comme xam nga Gambia euh, man dinaa jottali li nga xamante ni mooy euh, seen expectations si li nga xamante ni mooy album mbalax bii nii moo tax sànq Aba maa ngi doon laajte maa ngi naan Gambien si ñu ngi xaar ñaari façon. Euh, ndax dañ dañu ngi expect li nga xamante ne mooy soft mbalax xam nga mbalax dafa am bu soft mm-hmm. nga am li nga xamante ne mooy mbalax bu danse mm-hmm. euh, ndax ban la ñuy kii ba den ñoom ñu ngi expect ñaari yëpp but at the same time mm-hmm. euh, Youssou bu njëkk ba daf daan woy ak maire yi ak paay yi mu yu yàgg-yàgg yooyu bi andu ci kenn de so no I mean I'm saying comme de waxuma def ci ànd ak ni ma ne comme niñ daan woyee da style style of song bi mooy rétro yu yàgg yi Gambien si loolu bokk na si li nga xamante ne ñu ngi koy séentu tamit ndax Euh, ndax du am euh, because soo xoolee the background it tells a lot of story from ni mu solo everything this is the whole story of the album li xew ci album the old and the new school ah, dafa boole maanaam léegi ci mbalax yaa ngi fa woon yow yeah yeah yeah yeah yeah Youssou dañuy déggoo lu bëri ba xamoo photo bi rek dafa wax lépp aba Youssou aba Youssou ñoo ko desel la aba abaa yuusu ñoo ko desel si ngoom yaa ma fidde ah waaw nee ko ndax yaa ma fa woon abaa ñoo ko desel abaa abaa yuusu wàccoon nag ñun wàccoon nag ñun dama ne yuusu way na ba way loo xamante ne nii tey boo dee góor boo dégloo way woowu rek ma na laa teg ci yoon bis bu la xasee raw boobu bés dem na yeneen yi bis ñu ñëw xamoo lu muy àndal waaw Youssou dafa wàccoog Sénégalais yi waaw fi way bi ma dundee li ma weesu day dellu si mel ni seetu ay waye boo ko tegee ci membar ni musique bi da nga waar doomu aadama ah. déggoo ma de damay wax xam naa ko ay waye mën nga kaa taxaw ci membar wax ka waaye yow xale yu jigéen yu bari Youssou tax ñu mën a togg ceeb dañ koy teg son bi di ko déglu di togg nekk ci wàññi ah, ay bëri na na tey Youssou xoromul li nga wax ni is very la li nga wax ni is true. lii moom is true waaw li nga xam ne xoromul. kon ku toogee ni yuus. ah daa daa daa xoromoo. da ngay jaaxle da ngay daan daa wayul xorom. daa daa fàtte xorom. wax nga dëgg moom daal. waaw xorom rek la wuyu ndax bëgg ganaar. lan la way yuusu rek la wëyul ndax bëgg ganaar kon moo tax a way laax ak yooyu parce que laax ak yooyu yëpp way na moom ah, day jël temps yuusu way na caakiri ak way na mais ah, caakiri ñaama caakiri ah, non loolu waxul caakiri waxul na boobu ustaas yi ciy werante ñu ngi werante nee xool nañ xoolaat mais ba tey ñoom gisaguñu li ñu bëgg a gis moo tax waxuñ ci dara lu leer te way na taaw képp kuy taaw da gis sa bopp Itaawo Youssou Itaawo ak Bàjjen ak Keseng Keseng. ak Keseng Keseng. way na ba yuuxu Tabaski na Youssou way na ba way nit ñi concentré wu ci way wi ñii di ko xool nii Youssou Youssou dem ba yaakaar ni ñii dañ koy songu. ndax nit ñi ni ñu doon consommé way ji mu ne wóoy. waaw wuy sama ndey. wuy yaay yooyu ñëpp arrière xam nga dafa mën a way. daa mën a way du nit de. Youssou du nit de foo lamb ci yaram Youssou foo lamb ci moom da ngay daj kan mooy Youssou. Youssouf fo. Mm. waaye exemple laa joxe rek ci jël exemple rek. Euh, jël ci sa bopp exemple jël exemple rek. ma ne foo làmb ci moom. yow la kan gaawal waay exemple laa joxe. baal ma baal ma awa gay. eh gis nga Youssouf foo làmb ci moom. waay waay waay génn Youssouf loo làmb ci eh eh eh Youssouf. <laughs> ah Youssou waay way na way na way na way na lu ne waay ay Youssou dem na boobu waay waay Youssou mu ne waay waay waay Youssou way na lu ne waay waay Youssou neex baat waay Youssou mu ne ah. waay waay Youssou Youssou eh gën jàkk gën ko ndàmpa gën ko ndàmpa gën ko jàkk jàkk jàkk ay Youssou Youssou jàkk jàkk jàkk eh ki ki may ki pampararam pa ay pampararam pa ay pampararam jàkk tapat eh xoolal taas mbaa nga naan ndox. dañuy ñëw euh, clip bi moo mujjee génn ci Aïda Samb ànd ci ak waa Pressar ko Aïda dem lune dem miel rek ñëw euh, génn clip loolu am na solo donc ci ñëw léegi yaakaar naa am na ko ne ci ligne bi nañ ko xool ba pare soo a ñëw ci clip bi daal koy décortiquer teg ko ci kaw table bi daal di koy waxtaanee asalaamaaleykum. allo waaju baax. ñu ngi lay siyaar. mu ngi dox. noo tudd. maa ngi dëkk foo ñu woowee. maa ngi ah, fan. ah Kër Massar nga ne. ah yaa ngi Kër Massar ñu ngi ziar waa Kër Massar yëpp. moo ngi dox. waaw ah lépp jàmm. waaw. lekk ay. gerte caaf gerte kemb gerte suukar da ko bëgg loo ci gën a bëgg kemb gi wala caaf gi wala suukar si loo ci gën a bëgg la nga bëgg caaf dama doon jéem a xool rek dina seetlu kii mooy kemb bi kii mooy caaf bi donk comme caaf nga bëgg jox naa la caaf caaf wuy ko nga waxtaan ak moom mbaa yaa ngi am jàmm sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax naka waa Kër Massar eh, naka seen ngoon nu ngeen koy dundee yéen ah alors sëñ bi yow noo gisee li nga xamante ni mooy seetu Sénégal tey ni ñu toogee nii rek eh, tas suñuy eh, jaay rek teg ko ci table bi non non non billaahi. ko noonu ak yow ak Maodo dafa neex kay. billaahi lu ngeen def lu la waat. waaw dinañ la waat kon. waaw jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nuyu ñu waa Kër Massar. jaajëfaay. lan nga bëggoon. egg see gudde. xewal yi de egg see gudde ñu bokk ak yéen. egg see gudde yaa ko fi njëkk de. yaa fi njëkk xewal yi de. ñu lay kon dinañ la woo. dañ la woowaat. ah jamaam yokk ak ndam courage. jaajëfati ah Aïda Samb génne na clip bu bees donc euh, mu way ci lan. jëkkër sama jëkkër euh, man personally euh, damay déglu son wu Aïda. Mm-hmm. because Aïda her style is love. Mm-hmm. so man maa ngi doon séentu clip bu mel ni après bi ma déggee li nga xamante ne mooy mariage yu Aïda. Mm-hmm. because Aïda she's very amoureuse I mean uh, she she she's just love donc uh, te am na benn jonge boo xamante ne mi ngi si Aida dëgg la fësul bat boo ko xoolee di nga am uh, di am loo xamante ne yaa ko fay gis so man chéri Abass Diadio maa ngi doon expect li nga xamante ni mooy son bi man moom duggulee bettu ma. balaa ngeen wax ci son bi may ma ma wax xam naa ci ki tax mu way son bi. of hmm. sama xarit la. sama mag la ku baax doom yaay Youssou maa jigéen Ndour. doom yaay Mbaye Dieye Faye neex a fekk Gambie Abass yàlla na jàmmam yàgg. en tout cas Aïda euh, dafa bëgg waa ji. waaye waaye tamit daa bëgg Aïda. yàlla na yàlla defal leen jàmm nga ne yow noo gisee soxna. bi dafa ma dama ndax euh, jëkkër sama gi moom da ko jëkkër sama wu ñëpp wax dëgg yàlla képp ku am jëkkër rek euh, way bi yaa ko moom <laughs> mu génn lim <laughs> mu def li nga xamante ni mooy lune de miel am yàggul dara ñu foogoon ne Aïda Samb dina toog ay weer weer balaa ñu koo dégg mu daal di ànd ak ñi nga xamante ne ñooy waa Prince Art Abba nee naa la kenn dootu leen présenté ci son ci qualité d'image et tout ñu génne li nga xamante ni mooy jëkkër sama vraiment image bi qualité d'image man damay xool damay déglu damay xool bët day day xool mm. mais qualité d'image bi machallah de Samb def ci lu doy waar moom daal dañ koy ñaanal rek mu gën a jëm ca kanam ndax li mu def nii moom teggul loxoom benn ay dina ñëw toog fii ñu waxtaan ak moom loolu xam naa ni euh, bi ak clip bi faaw mu toog euh, de miel beeg yëpp ñu waxtaane ah. solo am maam euh, bi damay fàttali mhm. ndax fa ma demoon la may fàttali somon may nuyu waa somon aba clip bi dafa rafet aba aba bàyyi ma waxal rek ah da bàyyi aba li dafa may fàttali am naa droit am na fu may fàttali Somone boo demee Somone bërëb bi mel ni dafa am may nuyu waa Somone di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa fa fekkoon mu doon dëkk boo xam ne bu ñëwee dañ maa yaatal bis bu ma énervé ah, ah, waaw waaw waaw moo mu nuroog ma demoon lu aw wax ci bis boo ma énervé waaw bu ma wax ci kanamu Sénégal yëpp ñu dégg ko lan la bis boo ma énervé dinaa takk ñaareel dem dem yel nga xam ne lépp waaw waaw énervé énervé mais ak ay yéex ak ay yéex bis boo ma énervé naa takk ñaareel dem li ndam yel abaa lan ma lay énervé ma oh. wax ko léegi ah. wax ma li lay yaa ngi may énervé de waxal la ah, wax ma yaa ngi may énervé de yow ma yow bàyyi ma damay takk ñaareel yow doo def dara dem li <laughs> police yi nàq yi nga da ngay jubbante ay sàppe bàyyi ma xam nga la la ba célibataire kan moo ko créé moom lii ko jaaxal waaw ah, loolu ba tey ci wax abaa ajjee Mao Cissé heure anniversaire yi naa ni mën nañu waxtaanee anniversaire yi nañu dem euh, ci Mao Cissé nee mu ngi souhaité un bon anniversaire ak Kumba Diawo ci Rufisque mooy borom xolu jamaa bi ñuy anniversaire ñëpp ay borom xolu jamaa lañ donc Kumba Diawo ñu ngi lay souhaité un bon anniversaire donc dundal la totale yàlla na yàlla sàmm la yàlla yokk xéwal yi bu baax a baax a baax. Aba mu ngi souhaité Aba caméraman Aba Baye Darou Aba Talibé Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni Aba mu ngi souhaité un bon anniversaire à Amina Amina madame Thiaw ah c'est de la part de Aba Kra donc Aba euh, mu ngi lay souhaité nga dund nee na loo dund doyul euh, madame Thiaw Amina dundal la totale ku ci xam rek kuy anniversaire mën nga ko ja waxoon na ak ah, mu ngi koy jàllale waxoon naa ngeen envoyé les photos euh, bu ñuy souhaité anniversaire rek ñu koy jàllale mu ngi ñëw ci say projet Bousso sax da doon anniversaire. waxaale ko waxaale ko moom maa ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire. sama jumelle la ah doomu abaala la. borom HLM maa ngi lay nuyu de passage di la wax happy birthday dundal ba doyal loo dund doyul. léegi projet bi LGJP ah. LGJP the day I lost everything euh, pour. sama sister parce que moom moo ne le jour où j'ai tout perdu mën na am foo koy réeral ak mhm, mhm. donc mooy jour bi nga xam ne ci la ñu ñàkk lépp ci lañu wala ci nga. pour ci la mais ci lañu ndax man maay Sénégal. ok waaw bon tax ma ne ci lañu ñàkk lépp. Mhm. donc comme doomu sénégalais la je je suis pas un américain ni un italien. moo tax ma ne ci lañu mhm. donc et Sénégal moo tax ma def projet bi lu tax Sénégal moo def moo tax ma def projet bi parce que euh, je suis jeune dafa am ay ay objectifs yoo xamante ne nii moom laa am mhm. mooy euh, li nga xamante ne tey mooy cinéma wu Sénégal bi ak comédie wu Séné Sénégal bi dama ko bëgg yóbbu foo xamante ne nii àndandoo ceeg sénégalais yi mhm. euh, foo xamante ne maanaam day kawe suñu njortu ñun ñëpp et puis fii nga xamante ne li nga xam ne moom lañ doon gis ci tubaab yi ba di ko roy ci ñoom ñoom ñu dem bay gis ci ñun di ko di ko di ko roy ci ñun parce que mën na nekk parce que euh, tey tubaab yi am na yenn profil yu ñuy soxla dañuy ñëw fii def casting bi même bu dee doo artist dañ lay xool sa profil nice ñu ñu gis ci yow membrane teint bi nice et xam nga gabarit bi et ñu jël ko. wala noonu la ñu suñu maam yi. noonu lañ leen yóbboo. ñu ñu fekk ku ah? jeex. ñu investir la ngay jaay ñu ñëw fekk ku am doole ñu jël yóbbu suñu suñu pays bu nice bi suñu ñax yeeg suñu yenn affaire yi xam nga ñu wane ko donc loolu mooy loolu mooy xeex bi et c'est un projet boo xam ne c'est un projet vraiment lourd boo xam ne def nañ ci xaalis bu bare bare mm. bari bu takku wax dëgg yàlla ah ba pare def ci liggéey bi ci war ndax kenn ku ci nekk fa nga nekk di fa liggéey di fa fayeeku weer jël nañ la fa fay la journée pour juste pour bégal sénégal yi donc xaar leen ko bu génnee bombo claat lay doon ñu àndandoog suñu papa Youssou Ndour mu génnee suba si ñu langaa mu ngoon gi ñun nag ñu génnee muy daw muy daw euh, fan lay daw ak naka lay dawee xam naa di nga ma ji tontu après mhm. da ngay tontu aw gay ba pare mhm. waaw waaw euh, dama doon comment euh, du du question parce que li mu naan dañu ñëw jël suñu ay yi ñu moom daal di ko yóbbu waaye est-ce que xam nga ne adduna bi yëpp right now dañu agree na Africa is the future. dañuy organise ay special summit. ay lu nekk tubaab bi Russia America everybody eh, ñu ngi naan Africa is the is future. léegi nag comme moom li mu def nii muy man di Aba eh, all of us ñun ñëpp war nañoo mën a try réaliser something loo xamante ne ñoom bu ñëwee dinañ fekk na ñun pare nañ. fu muy jàll ak naka lay. ndax déjà eh, TFM dinañu am exclusivité bi. parce que man doomu TFM laa maay caat ko ba ñu xool ko continué waat nañu xool bande annonce bi continué waat ayca. Ami ah, c'est quoi ça. monsieur n'est jamais satisfait monsieur n'est jamais content monsieur passe son temps à se plaindre y en a marre cher. ayca mu ngi noonu donc lii mooy génn la 12 euh, war fan lay daw. Euh, ma ne TFM dinañu am exclusivité bi. mais bon na ko gars yi xaar sama ay plateformes surtout sama chaîne YouTube. et mhm, tout mhm. mais après loolu nag wax dëgg yàlla dinañ def ay projection ci salle cinéma yi. et puis dinañ dinañ ko yóbbu ci festival yi parce que am nañ sax ñu ñu jot a contacter pour festival yi ba pare parce que projet bi euh, dañ ko dafa am ay festival yu ci jotoon donc intéressé wu ci donc na ko sénégalais yi xaar et puis nañu sénégalais yi supporter fépp fu ñuy dem rek balaa ñu fay dem dinañ leen communiquer wax leen ne leen festival bii la ñu war a dem bu ko defee nag ngeen gungee ñu jàppale ñu ci bu baax a baax en tout cas dinañ ci wax un série la wala court métrage la wala long

am na ku ne ci ligne bi. am am na ku <laughs> ay bu dee am na ku ne ci ligne bi ñu jox ñu ko bu kenn nekkul ci ligne bi. Euh, bu kenn ci ligne bi euh, sant naa leen gërëm naa leen bu baax a baax ci seetaan gi nga xam ni moom ngeen toogoon di ñu seetaan sant naa leen gërëm naa leen bu baax ci ànd bi nga xam ne moom ngeen ànd ak ñun ku ci nekk ci ñun di nga wax ce mot de fin mais un mot. ayca man nag euh, samay moo day bokk ci nuyu waa Maroc ah, ñoom petit petit Camara ak ñoom Pape Moussa ña nga ca Maroc doomu yaay Pape Sila yooyu. maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax ñu ngi leen bëggee di bëggee waa AIC bi ca Maroc ñu leen di kontaanee bu baax a baax a baax salaamaaleykum si ngoom. Euh, alhamdulilah damay nuyu rek Koto Jogo Sukar moom wax dëgg yàlla ba ma tàmbalee entraîné ba tey ay keesu fruits la may yónnee waaye ki nga xam ne mooy euh, Mahmoud Six Avenue. moom moo ma sañsel fruits wax dëgg. Ah, non non man ça dépend ci heure bi may ñëw. Ah. bu doon guddi la dama ba ma gisee du ma xaj fii parce que am na benn jour maa xaroon ah, karoon. bu may dox nii laay def gaa damay wetu pour mun a jàll <laughs> donc Six Avenue merci beaucoup sañse bi nice na Jack Pro maa ngi lay bëggee waaye di bëggee ki nga xamante ne mooy waa Gambia maa ngi leen di kontaane bu baax suma mbokk yi ah mu ngee cool mu ngee baax yéen a baax maa ngi leen di bëggee su ma ënti abi dama faa am yaay foofu am fa ay nit yoo xam ne fii lan ma teg mhm. donc Sénégal Gambia àdduna xaar leen LGJP le bu Youssou Ndour génnee suba si ñun ngoon gi ñu langaamu génnee LGJP maa ngi leen di bëggee di leen kontaane di leen jox seen wàccuwaay jërë ngeen jëf mën ngaa demal téel micro bi. merci beaucoup merci beaucoup ayca ayca ayca ayca jërëjëf. demal génn ci biti demal génn ci biti génnal micro bi nga dem. non non ñii dañuy tàggatoo dañuy tàggatoo ñun dañuy tàgg génnal génnal fii plateau bi dañuy tàggatoo mu naan ay man nit kër sara lu suñu yoon ah, waaw ran ñu ngi lay bëggee xam naa waaw ba xam nga yow. da ah, nga nekk nit koo xam ne du nii nga may taal lii. aywa lan la aywa lan la. maa ngi lay moo la jaral. dañ maa yónni yàkkamti ma ah da lay yónni yàkkamti nii nga may def. waaw waa Caaro yi ngi lay seetaan. waaw may nuyu waa Caaro yi leen wax ne maa jaajëfal di nuyu Mamadou Sylla Serigne Mbengue waxoon nuyoo. waaw doo yow lay waxal ma. <laughs> waaw li nga may def problème ah, <laughs> ko jaajëfal sama grand boobu nga xamante ne nit ku baax la nit ku yàlla baaxal mm-hmm. di wax sama grand frère yi nga xamante ne maa ngi leen leen bàyyi kër ga maa ngi leen di jaajëfal di nuyu waa seenan bàyyi li nga may okkate asber naa la ah, yoroo <laughs> ah, cam xama sa gis waaw <laughs> waaw bàyyi ma waaw may may nuyu ñëpp di wax ne ñu ngi jaajëfal ñu ngi toogoon di ñu seetaan di kontaan ci émission bi yaakaar naa émission bi euh, bi mu commencé yàggul mais ñi ko bëgg a bëri na macha allah waaw ñi ko bëgg a bëri na fu mm. ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne ni tey ñooñu doon seetaan ah. mm. table bi laa dénk dama bëgg table bi fees del espace bañ cee am day am aba nga xam toog benn place du am émission bi yëpp boo paree ci produit bi da ngay dem ci produit bee pare ci dem ci bële taabal ji da war a fees del kenn ku ci nekk ñu ñu fësal li ngay jaay acca waaw loolu loolu tax a jóg jeex na sa tàggatoo yow damay bëgg mu nekk tàggatoo bu ànd ak li nga xam ni euh, moom mooy wax Sarabia ayca ak Sarabia. waaw mu ngoog euh, di leen euh, jox dig daje ba another Wednesday mercredi encore incha allahu si seetu Sénégal boo def leen ni man. Euh, tey lay commencé li nga xamante ni euh, mooy euh, product gam canal bi nga xamante ni waa Saraba bio ñoo ñu ko indil I said it it's for hair and of course li nga xamante ni mooy yow boobies and of course you know behind daf lay jox karaw help you also reshape jarut ngay dem di sonn di def li nga xamante ni mooy chirurgie and stuff like that everything is is is natural comme ni ma leen ko waxee rek Aba di remercier ñëpp ñu ñu seetaan waaye tamit euh, di euh, nuyu euh, Gambia di nuyu Gambien si di leen wax ne gis nañ li nga xamante ni nomination bi presidential nomination bi ñu ko taxawoo ñu ngi leen di ñaan rek ñuy ñaan képp koo xamante ni you are ñu daal di def noonu si li nga xamante ni mooy the presidential elections bi nga xamante ni moom la ñuy waaj a ñëw kon boog I love you guys I'll see you Wednesday. merci beaucoup waa Saraba Bio ñu ngi leen di kontaanee yéen tamit bu baax a baax di kontaan ci waa conciergerie bu Maroc ak Sénégal di muy wàcc di leen wax ñu wàcc ziara bi nga xam ne waa Sénégal yëpp nañu ko wàcc mooy am ca Fès ah sept euh, lay def waaye yaakaar naa ne fi ñu toll nii ziara bi nga xam ni ziara balaa nga ci doon dem da nga yor ay millions jël billet avion dal hôtel daj ci ay coono yenn saa yi doo am oto yenn saa yi ñu yombalal ñu lépp lépp ci ay bus yoo xam ne boo yeggee ba Maroc euh, dañu koy climatiser maam daan da ngay lekk da ngay naan maam daan avion bi lay yóbbu moo lay indi maam daan ci hôtel 4 nga Casablanca. lii loolu. dem Rabat. déggal li dem Fès. déggal dama ni la. avant noonu la amee. cinq cent cinquante mille francs ngay joxe. ah dañ la kaa may. Sénégal dañuy li laa wax. dañuy maye. ah dañ kaa maye. ziara bi ah dañ kaa maye. nga dem ziara ji Cheikh Tidiane. ah déggal li dem Fès. ah bon. kaar ba ngay yéeg rek dañ koy climatiser. foo gëstoo laal ndox. gëstu nii laal zi. boo xoolee ci kanam ñu jox la nga lekk ngay lekk ngay lekk di naan. ah wér nga. woote ayca mi ngi noonu 78 le 604 66 66 wala 78 700 607 47 47 ngeen dem ci avenue Bourguiba fekk fa ñi nga xam ne ñoom ñooy siège yu bu Maroc ak bu Sénégal salaamaaleykum. Abba. Hmm. Eh, dañ naan alhamdulilah rek eh, bi ñu ko defee ci jàmm ak salaam. waaye damay ñun ñoo war a sant kay ñun ñu bokk ak yéen plateau man ak Maodo mii. waaw waaw yéen kay bu leen sant yéen yéen kay wax leen rek ñun ñun ñooy sant kay. alhamdulilah rek di di remercier aussi téléspectateurs yi toogoon nañu seetaan ainsi que ñi nga xam ne ñoom ñëpp kontaan nañ de. internautes yi ci ñun ñëpp amuñu ko de ñun li ñu am nii ñëpp ñu ko am de. Ah, toog nañu toogee nii. barki yàlla ñun ah, xoola ñun xoola barki yàlla ñun ñu ngi sant de moo tax bu ñu waxee ay suñuy soxna ay ñoo ngi ñëw fii di liggéey seen xol du neex de ñu ngi sant de acca acca nga nekk cool na de. maa ngi def un gros bisou ak nga xamante yaayu Khadija yaayu maman yaayu Mohamed maa ngi lay def un waaye di remercier aussi les hommes de l'ombre. non ñoo lay a maa ngi lay di di yéen di jaajëfal di wax ngeen def ni man ngeen utiliser. non non non non ñu kontaan. ndax ñu kontaan non non gagné. ah ah ah Ah, yeggal fi nga nekk génne album le 12 dippee ko mbalax 12 titres moo ci nekk booy seetaan TFM da ngay scanner li nga xam ne mooy code bi QR code bi boo ko scanner daf la yóbbu sa boo demee sa wéef da am sa album nga xam ne bu génnee le 12 di bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk am album bi mën ngaa woote ci 88 628 72 86 wala 88 628 65 65 wala 88 628 72 86 wala 88 628 02 02 wala 88 628 03 03 nga mën a woote ci li nga xam ni moom mooy album bi nga mën koo am wala nga dem ci da nga xam ne ba leen dégg jàmm Ablaye merci beaucoup